jërë ngeen jëf ami téléspectateur u people 221 yi ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di ñaan réew mii di Sénégal yàlla na suñu borom doole jàmm di ñaanal suñu kilifa di nekk suñu kilifa aada yi di ñaan suñu gaynde yu suba comme niñ ko daan ñaanee yàlla mayaat ñu ndam ci diggante Sénégal ak Angleterre ñu indi coupe bi tey nag man di leen du ma ne sax gan ci kër gi waaye nag sama yaay bopp di suñu yaay waaw ñu koy nuyu baax a baax mi maman Salbé <laughs> borom people 221 maman dañ lay bàyyi nga nuyoog sa njaboot gi la seet si tey fas yéene laa seetaan. waaw di wax auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani di sant yàlla rek. julli Seydina Mohamed sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul di ziar Seydi Mohamed Moustapha si di ko jox yéegu waayam si Malick maanaam ah di kontaan ci yow pas Idi. Idi daf maa trahir. <laughs> waaw euh, di sant yàlla daal di leen wax ne jubóo naa Idi baal naa ko maanaam àdduna amut solo. waaw di ziar bu baax di sawar ci interview bi. maa fi may njëkkee muy sa soppe bi nga xamante ne yaa ngi koy wax léegi mu di Serigne Moustapha Sy ku leen xam-xam seen diggante yéen ñaar fan yi nag am ay coow yoo xam ne am na Sénégal ñu ciy cité turam ah, naka nga gisee taxawaayu Serigne Moustapha Sy ci politique. bëgguma ko man Selbé Ndom man mi wëllëreem wëllërenteeg moom ngir jëm yàlla ak yeneen bi moom mu tudd Moustapha mhm. ñu dippee ko Seydina Mouhamed mhm. man yàgg naa koo wax ne man bëgguma Seydi Mouhamed Moustapha politique mhm. ndax gis nga tey jii nit ku lay wut jéem-jéem jotu la dana seet fa nga gën a jege mu jaara fa Ami Ndiaye mu bon moomu ñuulaayam bi nga xam ne jigéen ñëpp ko dàq Amin Ndiaye moom mu bon moom mu sulliwaat loo xam ne nit ñi sax fàtte woon nañ lan moo tax nga dafa bon. dafa bon. parce que da nga bokkul ndax suñu Moustapha Sy du moroomam. warta bëgg Macky Sall récompense ko mi ngi naan biir daa yàqu te man bi ma ko njëkkee gis bi muy wax. tay bi mu sol. marinière taybaas bi nga xam ne am na kii. Mhm. gisuma fa biir. waaye bëgg a sonal nit ñi moo tax Amin Ndiaye di def loolu man d'accord ma si. Amin Ndiaye xoolal sa taraayu bàmmeel sëñ Moustapha Sy jotewul ak yow dara su waxee loo xam ne amul yow loolu du sa problème te loolu li mu wax am na man Selbé maa ko kitaabu ci billahi wallahi wa tallahi yàlla moo bañ ba mu waxee ne xam naa rawaani Macky Sall wax. barakati laa ilaha illallah muhammadu rasulullah wallahi alazim yàlla bu ma tekki sama àddina yàlla naa yées te kullu kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah yées ci catholique yées ci képp kuy teg tànkam ci suuf billahi wallahi wa tallahi paaka moo jóge ci asamaan ci dagg li man mii fi ma toog laa ko ne li nga wax du am de mhm. mais su ngeen xoolee toujours saa yu waxee dara man duma ci topp mhm. ndax day fekk man gis naa ba pare day fekk. ba mu waxee ne xam na rawaan bi nekk ci pale beeg nangam ak nangam nangam. Mm-hmm. barakati laa ilaha illallah muhammadu rasulullah. Mm-hmm. wallahi paaka moo jóge ci asamaan si dëgg li mu wax kon nga xam ne dëgg la yàlla ci boppam subhaanahu wa taala man Selbé maa ko wax jasim et jasim et jasim parce que damaa bëgg Seydi mu Moustapha Sy. Mm-hmm. yàlla moo bëggul sëñ Moustapha Sy politique. moo tax lu wax du ko nangu. man maa ko wax. parce que dama ko bëgg jege ko lool sama xol bi jege ko. man ba ma waree gis sëñ Moustapha Sy gis naa ko. Mhm. man. Mhm. fi mu ne nii bu dul champ doy na kenn du déggaat ma ne na ma sëñ Moustapha Sy may audience. Mhm. tant que wóoloo ma boppam man du ma dem. ndax man rek li may daj foofu rek kenn xamul lu mu toll. waaye bëgg gi bëgg fonk gi ma fonk. baarakallahu baarakallahu wallahi azim sëñ Moustapha Sy baax la mais bu ko neexee mu ne bu Macky Sall tëjee. Khalifa Sall man maa moom lay tëjandoo loolu waxu solidarité la rek waxu solidarité la kon maanaam nekk ba digg assemblée nationale naan dañu jéem a déstabiliser eh, sëñ Moustapha Sy billahi lazi laa ilaha duma ci ànd ak ñoom tey tey am na sens Amy Ndiaye am na sens xam lu tax Amy Ndiaye am sens billahi lazi laa ilaha illa huwa bu fekkoon ma doon député ni moom mu song sëñ Moustapha Sy damay jóge ki sama bag jëm song ko. mais est-ce que nekkul dafa waxee politiquement aussi morooma non na bàyyi sëñ Moustapha Sy daal lu mu mënti def rek affaire am la. monsieur Amin Ndiaye am na lu mu war a wax ci réew mi. dëgg la mën nañoo liggéey kon Amin Ndiaye bàyyi sëñ Moustapha Sy laa wax man Selbé j'assume bañu ma ci ba dem tëddi kaso. mais léegi na bàyyi sëñ Moustapha Sy ndax du sa morom. d' accord léegi damay génn ci sëñ Moustapha Sy bi ma ñëw ci li nga xamante ni fan yi paase amoon na fi bala maa ñëw foofu damay ñëw ci ñetti butéel yi ma tegal ñetti butéel yi lan la parce que gis naa match yi passé nekk 2-1 ñetti butéel yi ça signifie quoi. benn góor buy teg tànkam ci suuf su waxee ne moo tax équipe nationale gagné waxul dëgg. carrément bi jigéen ñoo ko offert équipe nationale jinne yu jigéen ñi ñoo ko offert équipe nationale. ah Karamba nee moom ñaar match yi mu assuré woon gars yi. Karamba c'est mon fils du ma ko du ko du ma ko détruire jamais au plus grand jamais. Mhm. jamais wallahi c'est mon fils. man li mhm. nit ñi wax ci Karamba man du ma wax ci Karamba. Mhm. ndax musuma dégg mu jàll ma musuma dégg mu tudd Selbé. kon su may wax ci Karamba jàmm laa ci wax ak salaam. parce que sama doom la. Karamba bu bàyyee saaga rek ma ànd ak moom. saaga yi d'accord ci. déedéet su bàyyee saaga rek man dinaa dem ba Mbour. mais ci wàllu xam gis nga ni am na xam ma tooñ. sama bopp laa xam. Mhm. man de maa fanaan sama néeg jëlal mhm. lii. Mhm. benn jigéen. moo njëkk a def lii butéel bi la doon doxee. di dox di dox di dox ba dugal ko ci benn néeg bu lëndëm. léegi ñaari butéel yii beneen jigéen bu bokkut ak dugaloon. ca néeg ba beneen jigéen moo jël ñaari butéel yi. di ko doxe di ko doxe di ko doxe ba dugal ko ci néeg bi féete nii loolu mooy deux bi ci laa wax ne leen man moom Selbé ñaari butéel yi maa ko moom sénégalaise la hmm. ñaari butéel yi laa moom benn butéel bi mooy butéel bu bon bi mooy Équateur mooy bi hmm. man kenn mayu ma dërëm kenn joxuma dërëm taalib sëñ Tuubaa laa hmm. lu ma am maa ko liggéey président defaluma mayuma passeport diplomate benn ministre mosuma may fukki dërëm. Mhm. kon man waxuma pour nañ ma jox xaalis dégg naa nag ñoo xam ne ay doomi xaram lañ. Mhm. seen ndey bu liggéeyuñ seen kër bàyyi duñ doon ay saagakat. Mhm. ne seen ndey liggéeyut ndax góor ñi yóbbu nit ñi makka nekk ay responsable. ñooñu la seen ndey liggéey. Mhm. waaye ñi nga xam ne dañuy toog di saaga nit ñi ndey. Mhm. te nga te nga xam ne boo jàkkaarloo moom boo ko saagaa ndey mu def la lu xeeñ. Mhm. ma ñooñu duñ tax ma tontu ndax tàmm nañu coupe du monde coupe d' Afrique ba nii lañ fa defoon. Selbé da ngay um Sénégal noppil ma ñëw indi coupe d' Afrique. coupe du monde bi commencé na. ñu ngi def samay photo am na si ñoo xam ne ñemewuñoo tudd sama tur. gis naa ci kenn nag koo xam ne kooku moom. amaguma jotam. Mhm. ba ma am sama coupe du monde ba pare incha allah mhm. mais tant que maa ngi ci coupe du monde du ma tontu kenn. Mhm. du ma saaga kenn. ndax bugguma def loo xam ne yàlla day mer. dëgg bugguma yàlla mere ma. moo tax man sama réew laa soxla. waaw fi mu ne nii kenn ku ci nekk am selbe indi selbe. nañu xam ne selbe fi jiitu. mag fay laa fekk mu yëy ay butéel di ko yëy. koromaak fay laa fekk. Mhm. fekk ma fi keneen. dëgg la bi may xuus. Mhm. fekk Ablaye Wade ca ba. Mhm. mu recevoir ma zéro heure. fa laa nekk ba deux heures du matin. dëgg xaw ma trois heures du matin. ki may ñëw mooy ñu gis ni am na ci yenn sëriñ yu bari yoo xamante ni ñoom yàkkamtuwuñ sax nit jóg ni senegal day am ndam ñoom bu ñu sañoon sénégalais yi duñ am ndam lu waral loolu. mais man xam nga basé ma ci benn sëriñ. dëgg la parce que man basé wu ma ci sama bopp man. dëgg la man ci yàlla subhanahu wa taala la kër gis leen fi benn téere. Mhm. gis fi njaq. gisu leen fi tuur gisu leen fi béjjën nii laar kër gi naturel bi mu mel soo paree nga wër benn butéelu ndox doo nga fi nekk ci buntu kër ga te ndox mi ñuy naan la maanaam awma temps boobu sama néeg boo fa duggee ay kaamil ak xuraan lee fa nekk bu leen neexee après ngeen ñu jël ko xërëmu ma gis ngeen nii laa toll kenn mës sa gis ma yore laar wala béjjën mësul am kon maanaam kenn ku ci nekk rek man bëgguma weddi kenn ndax loolu taxumaa jóg man moom am naa yaakaar ci yàlla sama borom keneen ku ci nekkit am na yaakaar. Mm-hmm. waaye man sama yaakaar da cee raw ndax samay pettaaw boolewuma ci dara c'est naturel. Mm-hmm. amul béjjën amul laar béjjën wa ca nag ba lay mm-hmm. gennu nag ba mm-hmm. ci genn nag ba la ñuy dagg mm-hmm. di ko cumbir cumbir mm-hmm. maanaam man loolu yëpp dunduma ko yàlla dimbale na ma ak yonent bi ni Serigne Touba doon def yorul dara Seydi Hadj Mal di ko def yorul dara maam Limaamul Mahdi di ko def yorul dara maam Baye Niass di ko def yorul dara maanaam Cheikh Ahmada Tijani Chérif di ko def te maanaam yorul dara man foofu laa teg sama tànk ma ñëw ci match yi nga xamante ni daanaka day waaj am suba mu mel ni cat dañoo teel a dugg parce que fare nañ ci weewu béy ni Aliou Cissé dafa feebar est-ce que jàppoo ni mystiquement dañ ko xaw sonal parce que kan bi dafa mel ni dafa xaw a wax parce que de maay dégg benn kilifa génn naan ay kilifa dañoo ñëw di ko fay pour ñu ni Sénégal na bañ a am ndam mu mel ni affaire bi dafa rax politique booy xool. waaw kooku gëm na yàlla. kooku sëñ Akim. xaw ma Akim borom saraxi. voilà borom saraxi maa ngi koy ziyaara man Selbé Ndom di la jox sa wàccuwaay. ne la wax ne yàlla tax ngay jàpp. jàppal te yàlla rek tax man am naa ci yow confiance. dëgg la jàppal te yàlla tax. sarax boo gis yow defal ko sa bopp. wallaahi yàlla moo lay fayal boppam. ka baax man mii man mii Selbé mille 2020 bi maanaam li ñu am xaw ma deux mille vingt 2022 bi li ñu am ci euh, coupe bi. Mhm. dama sama xaalis laa yoroon. bëgg jënd terrain Touba ndax sama rakk dañ maa topp jëndal terrain ma dégale sama xaalis waaye nag sama réew du soxla. Mhm. ma yóbbu. Mhm. du ma ko def. Mhm. déedéet dama ko yóbbu. dama ko def ci sama réew ba am coupe assuré woon ne damay am coupe bii tam noonu laay def ci kàttanu yàlla. Aliou Cissé ñu ngi koy ñaan rétablissement. parce que lépp Aliou la nag. Aliou laa gis mu yëre coupe. yéeg ba ci kaw. kaw. Macky Sall nekk ci kaw ñu wax ne Macky Sall day ñuy wàcc ñoom xamuñu lu ñuy wax. Mhm. Aliou Cissé laa gis moo tax mooy mooy suñu deuxième match. Mhm. mu ñëw fekk président Macky Sall ci kaw yéeg yéeg ramper yéeg yéeg yéeg ba ci kaw. Mhm. am lu mu jox Macky Sall te man gisuma Aliou Cissé wàcc. comme man mën naa am yaakaar ci yàlla ak yonent bi. d'accord ak Serigne Touba mi sama Serigne ak sama xarit yi. maanaam Seydil Hadj Malick maam Limaamul Mahdi maam Baye Niass. man ñooñu ñooy samay xarit man daanaka. li may wax ak ñi nga xam ne dem nañu ñooy ëpp li ma leen di gis moo ëpp. d' accord kon man du ma foowee sama réew. d' accord waaw lu mu jar rek dinañ ko def. d' accord moo ma ñëw ci match suba bi fi toll nii kenn tëddatul nelaw kenn lekkatul ba suur muy Sénégal Angleterre sa analyse ci match bi. biig si guddi Sénégal jubile na yuuxu nañ biig si guddi. Sénégal am naa yaakaar ci yàlla ne ñun dinañ dóor Angleterre un but à zéro. Sénégal. incha allah dinañ am. Coupe d' Afrique ba. Mhm. lu taxoon ma woo Matar Ba def ko message écrit dama ko ne Matar Ba di nga am coupe ndax sénégalais yi jubilé nañu dégg naa waa ma ne ko da ngay am coupe mhm. xam nga mënut a tontu ndax dafa yaakaar ne xëy na lu ma wax ma wax ne Matar wax na ma nangam aw ma jot googu ndax ñoom kenn gënu ci ciy diñ kenn gënu ma ciy doon doomu gor man doomu gor la pire samay maam di walliyu mm. maanaam sama baay maamam di buur kenn gënuma ci réew mi. xëy na nag am na ay yàqkat yàqkat yooyu di ma yàqal ñoom dañoo bëggoon ma di leen topp di leen tar bi ñu may may xaalis ak di ma may ay far. loolu kese la jotee ma ak ñoom dara amul kenn kuy taxaw fi ci réew mi ne Selbé ñëw na sama kër wax na ma nangam wala def na ma nangam amul. dëgg la voilà tey jii bii ci ma tëdd fan yëpp nelaw ma dégg jigéen ñi yuuxoo waa kon senegal incha allahu rabbi jubilé bi. gën naa tax ma am confiance. dafa am barab bu may ñaane yàlla bi ma toogee ne yàlla mat ci Sénégal beeg Angleterre bi. Mhm. flash. Mhm. biu tànk. Mhm. gauche. benn bii. sañu maa wax. cinq bii wala six bii wala wala trois wala quatre sañu ma koo wax kon yàlla dugal ma safara. même mm-hmm. moo tax sénégalais ragal bu amee. Mm-hmm. nañu xam ne lii ma wax laa gis su amul it nañu xam ne lii ma wax laa gis man ragaluma Angleterre. Mm-hmm. man Selbé Ndom taalibe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul. xaritu Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. seetkat bi fi njëkk a wax ne leen làmb jii di ñëw. wet bii la may daanoo. ba muy dëgg ñaari mbër yii di bëree deret dina génn te ba ma ko kenn ku ci nekk yaa ngi sa deret man Selbé Ndom taalibe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ki sëñ Tuubaa nangul taalibeem victoire bi damaa koy moom incha allahu rabbi suba damay jubilé la ilaha illallah incha allah man damay jubilé waa li bëgg sénégalais déggee dinañ ko sénégalais bu kenn tiit kenn ku ne na génne benn na yore benn bekk suukar sarax bi waaw benn bekk suukar si yéen ñëpp la wax senegal yëpp ku ci gëm yàlla fonk Seydina Mohamed jëlal ma benn bekk suukar paa yi mën nañoo jël gis nga sigaada basang. basang basang doon jullee. waaw laa gis yi bokk ko benn basang. Mm-hmm. man fi ma tiite woon ba ne yàlla may ñu ndam premier match. mu bañ ma ne ko bul ma def nii ci la futti barazaar bi sànni ci biir paanu ndox. Mm-hmm. foofu sax un la génne. Mm-hmm. man fu ma neex laay seetee. su ma neexee maanaam ma jël téléphone kii ne un laay am su ma neexee ma jël kuddu googu nga teg ci ci ci tubaab yooyu. waaw ne la un laay am. kon tey saraxu match bi mën nañ ko jàpp ci bekk suukar. benn bekk suukar sénégalais yëpp ak joueurs benn bekk suukar na ko sénégalais yi génne joueurs yi nañ leen bàyyi ñu xàppi waruñoo ragal Angleterre Angleterre ay nit doongu lañu Angleterre waa Angleterre ay omelette lañu. Mm-hmm. omelette fromage gruyère lañu. <laughs> Angleterre mooy kan nit ñi xool ko mu naan ay Angleterre. d'accord Angleterre mooy kan. d'accord gis nga tant que reyuma deret man damay am ndam. billahi wallahi wa tallahi. d'accord lu ma yàlla wonul nag wonuma ko. d'accord parce que fayoo ma. Mm-hmm. idi mi fayuma. Mm-hmm. ñeneen ñi war a ñëw kenn fayuma ci. damay wax damay dégg ay saaga. Hmm. lu ne may wax waaye sama réew jaral na ma ko. dëgg la. luñ ma wax rek bàyyi naa leen ak yàlla. Hmm. instant bi ma leen. Hmm. sama coupe du monde la tal. maman loolu rëy na de. mais pourquoi Sénégal warta mën a am coupe du monde. am nga ci yaakaar xanaa ñun ñun wax ashhadu an laa ilaha illallah cinq fois. wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. sallallahu alayhi koy wax. te gëm naa yàlla wóolu naa yàlla. billaahi wallahi watallaahi wóolu naa yàlla sama borom man Selbé Ndom Angleterre du tous Angleterre mm-hmm. pombi terre la dañ koy def baxal ko ba mu ñor rappaajo ko lekk ko def ci de match yi tey ma ñëw ci fédération bi euh, ci wàllu fédération bi est-ce que amoo ci ay ay retour comme boobu ba tey yaa ngi génn di wax non non ko sax nag mm-hmm. fédération bi soxlawu ci kenn mm-hmm. ndax ginnaaw boobu ba tey maa ngi wax quinze ans. Mm-hmm. waxoon président de la république dina doon président. Mm-hmm. laaj ba ma doon laaj sax ne nañ ma jox ma kenn. Mm-hmm. pour muy leer. na ànd ak yàlla mi ma àndaloon ba indi coupe d'Afrique. ànd ak yàlla mi ma àndaloon. ànd ak moom démb tey suba ginnaaw suba incha allahu rabbi ba ne ci coupe du monde. su ma gisul rek gisuma. waaye biig tëdd naa jigéen ñi yuuxu jubile. te am naa yaakaar ci yàlla sama borom. man Selbé. comme match bi nga xamante timis lañ koy football ci wàllu ci wà ci wàllu baatin loolu noonu gisoo ni mënta mënta di jafe-jafe mënta di sénégalais jafe-jafe. Oh, oh, loolu sama yoon nekku ci ku xalaat jafe-jafe na jafe-jafe ba bañ ñeeku sa kaw. Mm-hmm. man taluma loolu xam nga lu ma tal sama réew am ndam ci kaw. Euh, euh, euh, football bi nga xam ne ñëpp a tiit. ñëpp tiit de man kay yow mi ni 1-0. ñun ay nit ñu ñuul lañu. Mm-hmm. na leen équipe nationale fàtt. Mm-hmm. buñ leen may dara ay gaynde lañu. réew senegal lañ nekk. Mm-hmm. fii la Serigne Touba nekk. Mm-hmm. radiyallahu anhu. Mm-hmm. fii la Seydil Hadj Malick tëdd. fii la maam Limaamul Mahdi yu tëdd. fii la mam Baay Ñas tëdd man Selbé ragaluma. te ma ragal. man concurrence su ma kenn benn liggéeykat góor wala jigéen. ñii samay doom lañu nay leer. ñii samay doom lañu. ñii mun naa leen jur ñii samay rakk d' accord loolu dëgg la góor ñi sumay frère lañu. d' kenn ku ci nekk maa ngi leen di ñaan ci moo xam ne bu leen jox un milliard tamit. Mhm. nañ bañ te xam ne leneen li lay li leen yàlla di jox moo ëpp lii foofu. d' tey ma gis à propos match bi ñu doog def de bi ñu doon deex a départ am na ñoo xam ne neewoon nañ Sénégal du dem sax premier tour am na ñoo xam ne sax euh, am na benn femme bu génnoon ni nañ génnee ay saraxu ndel démb ma déggaat ñu naan ay saraxu pomme est ce que jàppoon ne ñooñu noonu tamit dañuy xaw a saboté bi aussi. non kooku mënuma ko wax dara. Mm-hmm. dafa am ñoo xam ne wax naa ba pare ne samay rakk lañu. Mm-hmm. te samay rakk la ñuy doon te samay rakk la doon. Mm-hmm. nee naa instant bi taluma démentir kenn. taluma ko. xam nga lima ma tal. coupe du monde. coupe ma ne ko ciix indi ko Sénégal ndax coupe du monde garabu guy de te man garabu guy gi xam naa fu mu fu mu fiñ ko teg. ci àdduna bi. Hmm. man xam naa fan lañ teg garabu guy bi. Hmm. kon man gëm naa yàlla gëm naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni yonent bi demoon xare badar li mu yéefar ëpp li mu jullit yi ñu dóor leen ba ñuy bëgg a dee malaaka yi wàcc yàlla naa leen idribuhum fawqa a'naqihim sama jaasi laa yor rek di taqale seen bopp ak seen baat man la sel bi taal bi seen Tuubaa te di nga fi ñëwaat. kon daal tiituma kon daal mun nañoo jàpp. wallaahi tiituma na xel yëpp dal ñu ànd ak yàlla ak yonent bi. benn bekk suukar daal laa bëgg ñu téyel ma ko. du ñaar du ñett ñeent omelette ba nag moom defar naa ko ba joxe naa ko. <laughs> Angleterre omelette la omelette fromage gruyère. <laughs> xam nga ki naan premier match dama ne deuxième match dama ne nañ laal tànk yi moo doon sarax bi génne loo kenn suukar laa wax nañu laal tànk yi tànku ndeyjoor bi ndegam tànk muy football. waaw laalal leen ma tànk droite bi man moom laa waxoon suñ deuxième match. troisième match bi butéeli quatrième match bi benn bekk suukar. d'accord omelette ba def naa ko ba pare. d'accord incha allah mu ngi noonu moo nekkoon sunu invité tey mu nekkoon sunu yaay vraiment dañoo ñëwoon nag seet si ko rek. di jógul fecc jógul fecc léegi <laughs> yàlla dañoo ñëwoon seet si ko nag seet si ko seet si bu ànd ak waaye tey ñëw nañ. taalibe Serigne Touba la xol bi dara nekku ci yàgg naa koo wax ñu naan ma li ngeen dëkk moo tax mais boo ñëwee këram soxorewu fi kenn iñaanewu fi kenn lépp loo xamante ni dañ koy def ci koñ bi wallahi lazim xaaru ci maire xaaru ci président au contraire li muy jëriñ waa koñ bii yàlla xam na ni maire bi fi dëkk sax defaluñu ko bu nawet ñëwee salbee ngi gaare ay otoom di def lu mën pour nit ñi mën nekk ci jàmm ak salaam donc xaarul ci état dara xaarul ci kenn lenn loolu mën naa koo seere parce que ñoo dëkk mu ngi noonu nag moo nekkoon suñu invité yaay dañ lay bàyyi nga tàggatoo ak ñi lay suivre ñi nga xamante ni ñooy people 221 di la sant ak di la gërëm. waa di wax jëf di wax sama numéro yi rek. Euh, loolu moom Idi dina ko dugal. très bien muy 77 737 67 46. 77 744 39 18 xale bu defee lu jaaduwul da nga koy yar te naa ko <laughs> yaakaar naa dootu ko defati. léegi maa ngi ko naan Idi jógal fecc. ndax may naa la exclusivité. waaw man nag di ñaan sëriñ yi rek. ngir yàlla nañ bàyyi saaga yi. nañ man ko. karamba Karamba dañ koo tooñ Kunkande moo ko yëngal Kunkande ko tooñ. waaw vraiment Kunkande yema sa place Kunkande liggéeyal sa liggéey nga bàyyi Karamba nga bàyyi Mara Niass nga bàyyi Aida Saliou nga bàyyi sëñ Moustapha Dramé yàlla kese. Mm-hmm. kenn ku ci nekk bu dee bokk la yow bàmmeel kon lijjantil sa bàmmeel. Mm-hmm. Karamba kii euh, euh, Kunkande euh, Karamba nga baal ma waxuma la. Mm-hmm. Kunkande bàyyil tooñ Kunkande moo tooñ Karamba. sëñ Moustapha Dramé mi nga xam ne mag la tuuti tontuwul ka kii. Euh, Koungheul Aïda Saliou tontuwu ko. Mara ngees du ko tontu kon maanaam Koungheul soo amee looy defal Sénégal rek defal ko rek yow boo mënee loo mën a génne génne génneel nga wax nañ def sarax bi ku bëgg def ko bëggul bàyyi. dëgg la mais bàyyi loolu dégg nga. dëgg la di joxe ngërëm ak cant. Mm-hmm. di ziyaarawaat Serigne Moustapha Sy bu baax a baax a baax. Mm-hmm, mm-hmm.